ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax noo ngi ci bis bu tedd bi nga xam ni mooy màggalu xasida yi nekk fi nga xam ne mooy jaalibatal maraqib euh, soxna si nu jàkkaarloo nag mooy maam bu sa mbàkkee jaalibatal maraqib bokk ci murid yi nga xamante ni muriti soxna lañ waaye fépp foo xam ne màggalu xasida am na fa wala guddi ajuma yi dafay teew tey jii nag ñu fekk fii nga xam ne mooy mbaaram soxna yi mooy taxawu liggéey bi nga xam ne moo fi ne ñu bëgg rek maam bu sa ñëwal na ci bis bi ci waajtaay wi ak soxna yi ni ñu takkoo ni ñu ñëwee ak yóbbal bi nga xam ne dana ko jox soxna yi nga xam ne ñoo toll ni moom jamono asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe seen mbokkum taalibe seenub jaam jaamaat Mame Diarra Baye Fall moo leen di siyaare bu baax te leen di wormaal te màggal bu wér a wér ah, la ñu amati yàgg nañu am tawféex waaye dañu koo amati moom la ñu amati adug yokkute adug santaat borom Tuubaa képp dong moom day saa ne day gën a yokku waaye saa ne du am yamuwaay saa su ne foo ko jàpp ne fa la yam day gën a yokk di wéy rek ñu ngi santaat nag Cheikh Amadou Mbacke Soxebu mii xam ne jant de borom Tuubaa googu noonu kat ci moom mi lañ koy jaarale day ji ñoo koy santaat bu wér di wax ne nag yow yéen ñu fekk tamit ci këru xasida gi ci baasu soxna yi soxna yi liggéey fi liggéey bam solo lool bu murita lool bu yemb lool boo xam te ni ñi mën a durus ñu ngi ci durus bi ñi mën a wérdo ñu ngi ci werdo bi ñi mën a jàng ñu ngi ci jàng ma ñi mën a toog ñu ngi ci waañee di ci ndax day mel sëñ bi day bëgg xéewal it yàlla yi yemul mooy waral dañuy teel a jublu mu teel a yem murid yi bañ a bañ a mar muy mel ne moom bax gara nga ëpp lool mooy waral saa ne day bañ day bañ murid yi di xiif ndax njabootu xasida gi moom ñu gëru xasida gi daan ak ñu nekkul njabootu xasida gi ñu ngi ak ñu bëgg lu baax ñëpp ñoo bokk bis bii muy màggalu xasida yi suñ tuwaa daa waxoon liñ ko gisatul dañ jàpp ci xasida mi ak jumaa ji waaw luñ nee ba gis duñ sëtam yi nañ yi nañ jàpp yi ñun nag jàpp nañ xasida yi bu wér jàpp nañ setam yi bu wér yàggan jàpp nañ jumaam ji dañ bu wér ñett yëpp lañ boole jàpp waaye nag xasida yi nag daa amul yemukaay moo waral ñu toll ci waral ñu nekk ci këru xasida gi nii te xam ne sëriñ bi ñu lu bind rek ay ngëneel la su ne ñuy santaat a wér a wér ma yegg koo teewee dañuy soog ñee ne sama mbokki soxna yi ñu ñu ñu daw lu bon li dañoo daw ñëw si lu am na lu baax li moo jar a daw wuti de lu bon li doo ko def benn yoon ba am ci ndam waaye lu baax saa boo ko defee yokkute ngay am ndam ngay am te lañ jublu ci xasida yi ñu ko mënut dañ dem daliwaat dem jàngi ñëw liggéey suñ Tuubaa ci wii ndax lii waaru mag la boo xam te ni murit yëpp war nañ koo mën mbindam mii kuy am murit war ngaa mën mbindam mii sama mbokki jullit yi nag ak sama mbokki na yi ak mbokki taalibe yi bàyyi ma kenn muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw maa ngi soññaat sama bopp lay tàmbalee nag maa ngi ne bon ñëpp maa gën a yées ñëpp maa gën a xew ñëpp di ci soññi ñëpp bëgg ñëpp nag ñëw xam gi ñu ki ñu am muy suñ Tuubaa jàpp mbindam nii donc gisatuñ ja ñu ngi gis jumaa yi ak sedd yi moom ñu murite lool ñoo xam te ni moom koo leen xoolee xam ni ñi ñëwar suñ Tuubaa lañ loolu rek tawfeex la si ñun saa su ne loolu day day ab soññee bu mag a mag mag waaye dañuy boole sedd ya boole jumaa ji boole ko mbindam mooma it da ca barkeelu bu wér a wér dañuy taasu nag la la dañuy barkeelu bu wér da xam ne suñu tawfeex la suñu xaas la ci ñun na it